lañu mëna mën a wax mooy dañaan ana buga buga mo ngi ni dañu won dafa daw ah en tout cas bi mu waree ñëw bi ko wérgu yaramam mayee mu ñew ñew na and ak avocat légui nak li ci dess moy bi ñëwee téru nañu téru bu baax bu rafet ah commandant Mbengue mi jité section recherche ak groupe ak njobo njobootam ñi mu àndal ñu ngi toog ñu ne ñu na buggaa ñëwaat suba incha allah alarba ñaar fukki fan ci weeru novembre deux mille dix-neuf ci ñeenti waxtu ci ngoon muy seize heures loolu la ñu mën a waxagum buggaa ñëw na wuy si na nee nañ ko na dellusiwaat suba incha allah rabi suba dina dellusiwaat ànd ak avocat Me El Hadji loolu leer na. waaw yeexaay bi lan moo koy ne ndax booba tey ñu ngi laam-laamee. non non amul yeexaay nii la demee rek. ndax li la war a mokk mooy suñu sukkandiku sa naataangoo Maître Assane Dioma Ndiaye ni xëy na règlement cinq mois ñàkk a teewaayu avocat yi xëy na lu ni mel nga ci mën a leeral. non loolu amul luñ ci leeral loolu règlement intérieur la réglement bi yore affaire avocat yi mooy buñ la ooyee danga am droit avocat taxawu la fekke laaj bi ñu lay laaj. keroog oo nañ ko Maguette Dioma Ndiaye la jëloon ñu ñaar nekkuñ fi tey ñëw naa Dioma Ndiaye nekku fi dafa génn Dakar man ma ànd ak Bouga pour ñu entendre ko pour ñu laaj ko léegi ñu ko war a laaj nee nañ ko na dem ba suba ci ñeenti waxtu ngoon bu ñëwee dinañ ko laaj li ko war a laaj loolu la yoon wax bu ñu la ooyee da war a avocat mu taxawal la teewal la fekkee li ñu lay laaj bala lu ñu lay néewal doole. lolu moy règlement 5 article 5 UEMOA. wa ndax mom démission bi ñuy laam-laamee ci pencum ndaw réew lu feuss la lu wér la wala déet. xam nga avocat yoon nek ci démission ab député wala ministre man affaire yi assemblée indiwuma fii ci assa ci bir gendarmerie dama ñëw pour taxawu ko xam ni ko wara laaj ci sama kanam luñ ko laaj mu tontu ci mais affaire affaire démission xamna ni nekkon na ci xelam mais duma ci wax. man may diriger avocat yi may coordonner

autour de M. Eladjouf qui coordonne. il y a un coordonnateur, c'est M. Eladjouf. Il coordonne donc la défense de M. Euh, Sidi Nafal Bouga.